salaamaaleykum mbokki internet yi tey nag ñu fas yéene leen a nettali génn àdduna ak Demba Diop maanaam rey gin ko reyoon fii ci gouvernance bu Thiès bojj ko ay paaka ba mu sedd guyu boo leen ko bëggee seetaan nag topp leen ñu ci vidéo bi ngeen seetaan ko ba mu jeex tàkk ay ca ñu dem ci fee yi 3 février 1967 ci la nag xew-xew boobu amee woon fii ci diwaanu Thiès ku nuy wax ab du Ndafa Faye nekkoon góor yàlla goo xam ni. ponkal la woon ci jamono boobu amoon doole yeggoon loolu ca kaw waaye doon ànd ak politiciens yi ci jamono boobu moom nag la ñaari député ci jamono boobu déeyante woon ay xel ngir nag ñu faat Demba Diop ndax Demba Diop dafa nekkoon itam koo xam ne ràññee woon nañ ko ci politique gu Thiès ak politique gu ci jamono boobu mu nekkoon itam jàmbaar joo xam ni lu mu mas a rekk da koy dagg ci fitam ci engagement citoyen ak ci responsabilité nan la affaire bi demee Abdou Ndafa fay dafa nekk militant ci beneen bannière politique ci jamono boobu wëlbatiku itam di lëkkaloo ak Jacques Derneville ak ku ñuy wax Ibou kebe ñu nekkoon ay député ci jamono boobu ñoom ñaari député yooyu nag ñoo déyante ak Abdou dafa fay ni ko réunion boobu am gouvernance te dem ba Diop bàyyi ko mbuur di ci ñëw su ñëwee bay génn xaar ko ci bunt bi nga fexe ko bojj paaka bi naka la euh, Abdou Ndafa jot loolu daal di nàmm paakaam ba mu ñëw Demba Diop nekk ci biir gouvernance di ñëw di waxtaan di waxtaan ak gars yi di lal ay plan ñoom itam ci seen bannière ndax xam ngeen ni nag jamonoy 1962 ba 1967 Sénégal metti woon na ndax tubaab bi jox nañu indépendance jaxase réew mi ni fes ni menteeñ bañu ñin ci suñu biir ñuy rayante ndax lan politique moo tax ennemi politique mu doy waar loolu ci jamono boobu Ibou Ndafa nàmm paakaam Demba Diop ndeysaan ca fit wa ca jàmbaar ja génn waaxu xaabar xaabari ak naaju tàng wi dox ñëw bi mu ñëwee Ibbu Ndafa Fay daal di daw riir ko Demba Jóob itam mësta reculer te nekkul kuy dellu gi naa ndax borom fit la woon mu taxaw mbokk internet yi daal di jàkkaarloo ak Ibbu Ndafa Fay ñu kërti kërti songoo mel ni nag kuy laabisoo maanaam mbër yu lëwtoo ca la nag Ibbu Ndafa ni roseet paaka nga xam ne bu njëkk mag ñi seeni paaka ci seen i dabaswaay lañ ko daan dugal dabaswaay nag mooy daanaka takku gi nekk ci seen ñoor ñu koy rarare ak ñoor gi mu nekk ci seen ndigg mu ni ruset paaka bi xàcc dem ba jóob wuti ko ni ko ah kon da ngay daal di commencé da nga may jéem a rey ñu songoo kërti kërti Abdou Ndafa fay daal di koy bojj paaka bi ba mu ko bojjee paaka bi nag ñaari député ya nga xam ni ñoo laloon plan ba ni fes ni monteñ daal di daw daal di way takku der ya fa nekkoon ñu daal di teg loxo Abdou Ndafa loolu nag mi ngi amee woon ci buntu gouvernance waaye mbokk yi rey bu ñaaw ndax Demba Diop dafa daanu bi mu daanoo piquet daal di xëm ci diggante bi deret ja daal di wal nga gis nag foofu yépp la fa nekkoon ci responsable ku ne wut foo rawee Abdou Ndafa nag taxaw yor paakaam laataa ñu koy arrêté ni sëcc di kat yi xam nga bu njëkk mag ñi dañ daan takk li nga xam ne moo dudd ay yësit yoo xam ne da daan necc ñoom ba bu nu meree ci politique rek bu ñu riiree da ngay tiit bi loolu amee nit ñi daal di jël ki nga xam ne moo di Demba Diop mu daanu daanu ba nga xam ne nee nañ ci histoire daanu jàmbaar la ndax nag euh, ci xare politique lañ ko faate ci complot boo xam ni xëy na mi ngi doon samp ay pion ngir nag di waajal ci la nga xam ne moo tàmbalee 1967 jëm kaw waaye yàlla foofu la dogale ak dundam waaye nag mbokk yi mbir mi nag dafa yàggul ndax tribunal des na koy àtte amaloon ca ab procès fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars atum 1967 keroog nag Abdou Ndafa Faye jàkkaarloo ak àttekat yi ci jamono boobu tribunal spécial daal di koy daan ab pen pen boo xam ni méngale woon nañ ko ak peine de mort ndax nee nañ sax ci histoire mooy sénégalais bi nga xam ne moom leen njëkk a dugal peine de mort ci ak dundam mu mel ni nag fukki fan ci weeru avril ki fi nekkoon njiitu réew di Léopold Sédar Senghor daal di nay nag exécuter décision boobu daal di bañ lànk ni du jox Ibou Ndafa Faye li ñu di duppee grâce présidentielle ndax nag li mu def crime la te crime faw ñu àtte ko. mu mel ni génnuk àdduna député maire mbuur bi marqué woon bu baax a baax sunu gaal rawatina nag képp ku yëngu ci wàllum politique ci jamono boobu ndax nag circonstance yu doyoon waar la ñaari député yi ko santoon nag jëye jooju muy Jacques Derneville moom daan koy daan ñaar fukki at yoo xam ni travaux forcés lañ koy tuddee travaux à perpétuité lañ koy tuddee mu mel ni daanaka wóllëreem député bi nga xam ne moo nekkoon ca wet ga ni Ibou Kébé moom travaux forcés lañ ko daaj mu mel ni génnug àdduna euh, ki nga xam ne moo di Demba Diop ci gouvernance bu cees tiisoon na ndax Demba Diop ñeen fukki at dong la dund ci kaw suuf amaloon njariñ nag askanu Mbuur rawatina nag euh, fi nga xam ni fa la doon yëngu ci wàllum politique mu nekk nag doomu Sénégal boo xam ni boo ràññee ci biir histoire daanaka moom rek moo fi am euh, lu ni mel ñu tudde ko ab lycée wëlbati ku tudde ko ab stade Demba jom nag mbokk internet yi buñ doon ñëwaat ci dundam liñ leen ci mën a nettali rek mooy mi ngi gane àdduna fukki fan ci weeru mai atum 1927 ca booge booge nag mi ngi ci rive fleuve bu Sénégal feggoo ca Mauritanie foofu la fekk baax waaye nag instituteur de formation la woon maanaam xam-xam màcc jëm ci wàllum njàngale ndax nag bu ñu duggatee ci histoire diplôme ya tax mu dem di jàngale da ko daal di nas noccee ko ca école William Ponty ci atum 1947 laata nag muy am certificat boo xam ni moom la ñuy duppee ci jamono boobu certificat d'aptitude pédagogique muy loo xam ni moo tax muy dugg ci classe yi di sandonga yi ñu affecté ko nag Sédhiou mu def ay at. daal di ñëwaat ci atum 1949 euh, fii nga xam ni moom la ñuy tuddee collège moderne ci diwaanu Thiès nekkoon fa surveillant général ci jamono boobu nee nañ sax ci histoire ca la gise soxna si ñuy woowee Caroline fay ci atum 1951 ba mën koo jël soxna. mu mel ni nag daa wëlbatikuwaat ndax dundam itam politique lal na ko waaye am gëstu itam nekkoon na li ko yitteel ba tax na delluwaat na ca école régionale bu mbuur ci atum 1958 ngir yokk xam-xamam homme politique boobu ñu ràññeekoon loolu ci UPS di Union progressiste sénégalaise di partie boo xam ni moo ko yóbbu woon ca assemblée nationale waaye itam mu nekk koo xam ni doomi mbuur yi dañ koo adopté woon ndax nag du doomi mbuur jugewu fa woon dafa jóge woon ca diwaanu wetu muritani ca dëkk mu nuy wax boogee ñëw mbuur ba askan wa daal di féetewoo ak moom ca lañ ko def nag euh, député de la nation ci atum 1956 ca assemblée nationale mu toog ci péncum ndaw réew ma moom Demba Diop di nas di nocci mu nekk koo xam ni nag ci biir assemblée nationale am googu googule am na ay poste yu baree baree bari yoo xam ni occupé woon na ko comme ni ñu koy waxee saa su nekk ci aw fitam ci njàmbaaram mooy li ñuy duppee rapporteur commission éducation nationale li ñuy duppee itam rapporteur ci enseignement technique waaye itam mu jëmoon ci ndaw ñi ak sport bi ca assemblée nationale moom Demba Diop moomu bokkoon na sax ci ñi nga xam ni ñoo doon jiite groupe parlementaire UPS ci jamono boobu mu mel ni nekk na itam ministre ci wàllu éducation populaire ci wàllu jeunesse ak sport ci fukki fan ak juróom ci weeru décembre atum 1962 ba juróom fan ci weeru décembre atum 1963 mu nekkoon itam ancien champion scolaire du disque nekk itam koo xam ni lu bare bari sélectionné nañ ko ci équipe nationale athlétisme ci jamono boobu kon Demba Diop mën nañu wax itam ni xam-xamam jëm na ci wàllu politique waaye sport bàyyiwu ko woon ginnaaw moom Demba Diop moomu nag bokk na sax ci ñiy samp club Stade de Mbour ci dundam daal daanaka ñeent fukki at la dund waaye itam dara ñaawu ci ndax nag histoire ba léegi mu ngi wéy di amal solo askanu sunu gaal donte nag génération bu bees bi ñu bari xamuñu ko kon nag mbokk yi Demba Diop a ngi noonu ñu bàyyi leen rek. ak euh, beneen épisode dikkaat ak geneen kilifa ci biir réew mi ci histoire